ñaar moo mën a am walla ñetti choix bii mooy ñu bàyyi jàkk yi mu continuer di fonctionner bii mooy euh, état gis ne ni feebar bi doxee ak ni wàllaate bi di gaawee ngir aar population bi daf cee bokk mu tere dajaloo boole ci loolu dajaloo diine yi jàkk yi nga xam ne dañ ci dajee juróom yoon par bés mu ne nañ ko tëj ngir aar nit ñi waaye loolu yëpp tam bu fekkee ne docteur yi wane nañ ne fii mu nekk nii feebar ni muy tasaaroo dajee jàkk yi mën na koo indil problème ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tere woon euh, ne ñi feebar nañ leen ber bu ñu dugg ci ñu wér ndax bañ ñu leen bu fekkee dañoo war a bañ ñi feebar bu dugg ci ñu wér te feebar ni muy tasaaroo yi gis nañu ne li docteur yi wax waxuma li politique yooyu politique yi wax gis nañu ne am na ñoo xam ne mën naa nekk ci ñoom ñu koy wàllaate te du feeñ ne yor nañ ko te loolu dugg ci mbooloo mën na koo tas ñu gis ne kon nañu wax ñu tëj jàkk yi ngir aar nit ñi loolu ab choix la loolu nag gis nañu ne ren yaatu na lool commencé ko ci réew réewi lislaam yu yaatu lu demee ni Iran lu demee ni Arabie saoudite lu demee ni Koweït lu deme ni Qatar lu demee ni Égypte lu demee ni Maroc ak Sénégal gi ñu ne euh, ñu bari ci boroom xam-xam yi jàpp nañ ne loolu mën naa nekk am na ñeneen ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu warul ne du yoon néewal diine doole la c'est pas normal waaye dem beneen choix bi nag mooy kenn ku ci nekk li nga wax teg ko ci diine argument nga ko borom xam-xam yu bari bind nañ ci fi mu nekk nii di wax ne loolu dafa war a ne du sax mën na dafa war a nekk indi seeni argument teg ko ci lu tuddee lu mel ni xifsu nafs bakkan bi dañ ko war a aar dañ ko war a sàmm dafa bokk ci maxas maqasidu diin bokk ci principe yu mag yi ci charia objectif yi finalité yi ñu sàmm bakkani doomu aadama yi ndax Euh, balaa nga ne naam ne fi comme ni ñu koy waxee ji wolof loolu bokk nañ ci seeni argument ak argument yi nga xam ne dafay wane ne ku feebar bu mu rax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo wér te jàkk yi gannaaw feebar bi feeñut rax gi mën na am loolu dafay jur problème euh, waaye ba wax ne aussi mën nañoo bàyyi ba jàkk yi tëjal seen bopp dem ba nit ñi mënatuñ faa dem kon ci histoire mën ñoo génne ci téere yi luy wane ne jàkk moom mos naa dem ba tëj nga xam ne nit ñi ñoo ko talatut ngir feebar ma liir rek ba demee ci Siyaaru Alaamu Nubala dix-huitième tome bi euh, page trois cent onze ma nga fay wax lii wa kaana alqaxtu aziman bi misr wa bil andalus wa ma ohida qaxtun qattu wala wabaun mithlu bi qurtubata summa baqiyat almasajidu muxlaqatan bila musallin doon nettali famine bu amoon ak peste bu amoon ci ak Andalus nga xam ne mosuñoo gis lu mel noonu ci Cordoba euh, mu ne ba jàkk yi mujj tëj amatul ko fa jullee xatta baqiyatil masajidu muxlaqa bila musallin baqiyatil masajidu muxlaqatan bila musallin jàkka yi des di lu ñu tëj nga xam ne amatul kenn ku fa julli léegi nag dañoo demoon